Euh, fa ñu dëkk ñëpp dañ leen jug gunge leen ànd ak ñoom sama duraat maa ngi fi am ki nga xamante mooy booy Plateau Boy Plateau Boy Fass ah Boy te moom laa fi daal sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante mooy Malick Ndiaye 37 fou Malick Ndiaye 37 fou borom Pikine ah borom 37 dof ak 37 fol yi tey ñoom laa fi daal bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière waaye bëgg waxtaan ak ñoom ci lu bëree bëri bëri ma bàyyi Malick Ndiaye mu nuyoo ñu doog a waxtaan Malick nuyu naa la. waaw fay naa la sant yàlla rek di julli si yonent bi di ñaana sama ñaani waa yooyu waajur fa ñu tëdd yàlla ni yàlla yërëm te xaar leen àjjana. amiin sa maam bu góor bu jigéen. sant waa Pikine bu ma ko Pikine gi yëpp maa leen di sant Pikine Ecotaf Télé bu mag Ridis. Mm-hmm. comme renfant yow ginnaaw raay. maa sant waa Pikine ñëpp man aw ma lu dul dara man Pikine laa am. fu mu mënti dem lu mu guddi guddi lu ndongo ndongo loo wax rek. Pikine la ñuy ñibbi instant maa ngi nii mari toog def émission mais sama xel mi yëpp a ngi Pikine. Mhm. waaw maa ngi waa Pikine yëpp. gis nga maa ngi sant waa Pikine loolu la nuyoo plateau nuyu naa la. waaw Ouzin maa lay fay dinaa ko bisimilah na wali ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent mu sell mi mhm. waaw di si teg dinaan jër Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba xat faaxa kabala xat basa fadala faduru wala war na su jaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay bu baax di sant ñëpp sama fami muy sama famille maam xam nga bàyyi ma kenn daal di nuyu waa ñaacokeer waa Fass fu ma dëkk Mm-hmm. mais tamit waa ñaccukee di leen béggee bu baax a baax a baax képp kuy béggee palaa rek parce que ñu may béggee bëri na képp kuy béggee palaa rek palaa béggee na la jamaalien bi béggee na la di sant ñëpp bilaay walaay di nuyu sama sëriñ almis Bakara Fall mu ngi fii maris waaw di ko ñaanal xam nga di ko ñaan tamit mu def ñu ay déggi dëgg dëgg taalibe parce que ñun amuñ lu rul taalibe ci mm-hmm. loolu la ñuy wuyoo ci loolu la ñuy sas xam nga waaw di ko ñaanal daal bu baax a baax yàlla bàyyi fi moom fekkee njëriñ taalibe yëpp waaw gis ngeen mbokk yi ñoom ñaar noonu nuyoo tey nag ma bëgg waxtaan ak ñoom parce que boo xoolee palaato mi dama koy wax félicitation ndax euh, mujj moo ngi mujj bëri ak ki xamante ni mooy Yanda ba démb yàlla dogal mu am ci ndam waaye euh, sama copain Malick Diatta en moo ngi mujjee jóge ci moo diggante ma buusita bu Siteu daan ko mais moom nee na daanuwul fu mu toog nee na daanuwul def na recours jotul jotul jotul këyit bi wane daan na waaye ba tey nee na moo daan loolu kenn mësu koo gis. boobaak léegi nag bu Siteu amaan na fi combat ba yàlla dogal mu daanu ba léegi moom kenn gisaal ko man nag loolu bokk na ci li ma jaaxal parce que bëree boobaak léegi ak ni mu yàggee lan ma woo sa toogaay bu yàgg bi bëreewuloo. non man tooguma lu yàgg bëreewu ma ba ma bëreeg bu Siteu yàggul. Mhm. kon maa ngi bëre gëjuma bëre quoi. Mhm. mais tamit maa ngi toog di xaar. am na mbër promoteur yi may woo. am na promoteur yu bëri di ma woo di ma wax ay booy yu bëri. Mhm. pour ma bëreeg ñoom comme en point yow. ba ñu ma bëreeg ñoom dañ ma fay xaalis. Hmm. ku ma fay deux millions du ma bëreeg benn booy jaral na ma ma bàyyi bëri. ah deux waaw deux millions day dara. ci làmb comme dërëm. yow nag mun naa bëri si yow. ndax parce que cent millions ñii mbër yi lekk cent millions yi kon ñoom. kon kon nu mu demee ci ñoom. non mais mais mbër yooyu dañuy ànd sponsor nag moo tax yow ànd woo sponsor bëgg a fay ko deux millions Malick Ndiaye loolu mooy oh. a bàyyi. ndax parce que nu may bàyyee man may fere sama làmb lépp deux millions lépp deux millions du dugal estat man na la samaay lépp deux millions man bu ma jugee Pikine gi yëpp jug. Mhm. sama combat bu Siteu mii gis nga nu mu demee. moo tax kon ñë ku si nekk di prépéto di wax dañ ko préparer normalement ma pare préparer ko normalement dem ba kii combat bi yàqu ma parewaat préparer par préparer waat combat bi ñu dem ba ci biir ne ma duñ ma yokkal duñ ma jox dara ma ne leen bëréw ma ci nga dawee dem Diourbel defuma dara. ci la nga dawee dem Diourbel kay ko. toog sama jabar. mu lay toppatoo entraîné wu ma mooy toppatoo entraîné wu ma defuma dara. dans un mois entraîné wu ma dama bañ du bëre ba ne combat bi suba la ma seen woo ma am lu mu man ba ne combat bi suba la suba guddi gi la ma ëmb seen woo ñu ne combat bi suba la mbër boo bëriwul dinañ aj écrit bi nangam ak nangam ma ma volontaire ñëw bëri si te gis nga ba ma bëri see noonu la demee dóor yu métti laa ko dóor famba mi dama ko doon damm. lan moo tax sa combat bi demee noonu man maa ñëwoon pour humilier ko mais mun naa ko jàngal ku dul mun naa ko jàngal bëre. mais est-ce que loolu kese tam nga ci amoon. nga ne est-ce que doo nga amoon ci làmb ji. Mhm. mais Malick Ndiaye 37 jours moo daan gis ak bi ma gisoon kaw ak du benn. moo tax ma noonu tudd sa jabar ñu lay. ñu lay demewut noonu da ngay wax nu mu demee. nan la demee. nu mu demee mooy mën na la samaay dañ ne ma yokk dañoo tëgg combat bi bala vingt cinq juillet ma préparé lu ma yoroon lépp ma dab ko ci ak lu ma am jaay samay xar lépp dab ko ci ñu dem ba le vingt cinq juillet ba waaj a ngemb dem stade ñu ne combat bi amatul ñun mbëri ñu ñàkk ñàkk lañu lañu préparé woon lépp ngi dégg fa may xaj yow mhm. ko ñàkkee ñoom ñu ne waat dañuy jàppaat jàppaat nañ dat te duñ leen jox dërëm mhm. loolu day yomb trop man it ma taxaw ne leen bëréew ma dem sama dëkk toog nekk sama jabar mooy toppatoo kase kon préparé wu ma combat bi te gis nga ba ma ñëwee stade nu mu deme dama ko duma duma yu metti dàq palaake boobu ma dàq palaake mënu maa daan dóor yi metti tax mu ne naataat sens dàq palaake ma def changement de pied maa ngi bokk fii loolu mënu ma cee daan. bu yàggee de doo saf na lool mais bu ñu jógee ci loolu. dama gis dama dama dama dama gis boobaak léegi. Euh, ñoo ngi lay wax ay combat nanguloo jël combat yi mais booy bi. waaw booy bi toog. waaw. pare na pour jëflante ak yow parce que dama gis promoteur wax te ni pare na pour tëggu combat bi. bëgg na leen boole. parce que am na si journée bu mu ko bëgg a dugal. moo tax ma woo leen bëgg waxtaan ak yéen. waaw. bu fekkee bëgg nga kay ma ma boole. waaw léegi man dëgg li wax dama fay xaalis. mais pare nga bu jëflante ak booy kii sama jantal raq la pare naa pour may ko sens déggoo ma de sama raq la ku ma jox cër la. voilà ku ma jox respect la. sa waay nangu kon lu mu bëgg ci man jeex na. Aly ku may sens si làmb loolu fierté la. sama parcours làmb lu def sama làmb su ma soxee ay légende rek laay bëree. man dama judd pour nekk champion lu ma daan wax rek yow pi doon perenda todos yo estoy nacido para volver en campeón yee man fu ma dëkk làmb fa la soow làmb yi ah, gën a mag Sénégal làmb da leen wuyu si moom. te dañuy xayma te dafay dafay dafa dellu. cousin. Hmm. dafa dellu ñun dañuy bëre si jotee. dañuy bëre te làmb ba tey waneegu ma si sama parce que gars yi dañ may woo si si si guuxum soow man mooy lan ku ma woo si xeex woo nga naat si guuxum soow. Malick Ndiaye mi day xeex. waaw Malick fu mu fu doo buntu feeñ de bi mu jàkkaarloog Bou Siteu. bi mu ko ah. pompé ñaar ñett bu dana xanaa tey laay dee rek daw dàq ko placard. <laughs> xam nga kooku. <laughs> daw dàq ko placard. Malick kii gars yi Ouzin. Mhm. kooku démb la amaana dóor yooyu mën na ko def dara. kan moo yàqu démb. bu jamonoy gelwaar la bàyyi nañ wax ci émission bi quoi comme naana te bàyyi waxam. waaw non damaa xam ne toog fi ngay wax bu bu bu bu ko ko dàq. ñoom ñaar la la vie est un obstacle àdduna combat bu nekk ak ku ngay dajal. Mhm. yaa man sama trois yi bokkul ak moromam. Mhm. waaw mais su ay coup ci làmb moom man damaa ñaaw ba xool ma barki leer alxuraan fefu jàmbaar di fefu hôpitalu jàmbaar laa juddoo man Dantec. yaa ba ñaari jàmbaar jur ma mu maire dëgër musóor ah ak góor yàlla taxatuway yaa kon ay coup jaaxul ma ci làmb. mais sa diggante kii. combat bi taxawee noonu la jëflanteeg moom. kon per Ndiaye nag wax ji mën na neex nii rek de. Mhm. nga ngay wax waaye bu dee bu defee lu jëflante. ragal loo waxoon daa ko defee bàyyi ko. sama père. ngi lu ko neex na def. da ngay ah. moom sama père la. Ah. waaw sama ah, père la bul ko bul baab kii maguloo maguloo. sama père la parce ba may ba muy bëree maa ngi dëkk Pikine koñ mi ñu naan 713 tali bu mag. Mhm. sama yaay mi ngi dëkkoon foofu ma doon dem di vacances foofu xam ne kon Malick yàgg naa ko seetaan ba pare. yee xam na lu may wax koñ moo xam na ko yow daaw la. ah waaw moom ah non mais loolu nga ko mën a tuddee ci làmb. déedéet <laughs> <laughs> xam nga rek bu si bu nekk yow daaw <laughs> bu yow daaw moom yow daaw la nangu lool. Uh-huh. ñaata kaa daan la yàq. Malick waaw Malick seen adada la yàq bëriwul élection yi la voté wul rek. waaw <laughs> mooy loolu. xam mooy loolu quoi Ouzin ñun lamb dañoo yaakaar ci kanam. Hmm. waaw. allo. <laughs> allo. <laughs> kooka la. Eh, Serigne Malam Malick Ndiaye juum de. waaw damay def émission nii waat ma ci kanam. waaw damay def émission waa waan ma si kanam. waa waaw dinaa la woo waaw. ba am nga crédit. maa ngi crédit ah. ngeen lii moom rek laa ko mën a may. xam ngeen moom keneen la. du ma ko may loolu. waaw ah, nekk ci làmb quoi Ouzin. Mhm. doon ay xale ndaw man lu show pour mi madre man sama yaay moo ma dugg ci làmb roi des arènes soxlawu ma ko. couronne roi des arènes bu ma bëggee mun naa ko defarul tax ko bopp kon jarutul dara oh, ci làmb man suma yaay Lucio Por mi madre yo quiero ayudar mi madre man suma yaay rek parce que situation a métti Ouzin gàcce cent franc mënu ma ko faj bilaay barki leeru alxuraan bu may ñëw yaa may paas si mbër bu bëre trois combats mais lépp sant yàlla rek xam ni tepp tepp a te day ñëw ci kanam mais pour mu ñëw foog sama père ma sens gis naa ne ma may sens loolu dina ñëw te xam naa ne du ma xañ sama wërsëgu yaay. wax ji mu wax dafa daw yaram. billaay wallaay. bu ma ah. Ah. ko mën naruloon may sens dama ko may ndax nit amul lu <laughs> tey jii sama yaram dafa daw ndax parce que man mi man mii gisuma sama ndey gisuma sama baay. Mm-hmm. teel aju mi ko amaana man tey jii bu ma gisoon sama ndey di gis sama baay fa mu taxawee ba wax loolu man fa taxaw te lu mu wax ji mu wax laay wax. te Ouzin di ko ñaanal quoi. Ah, moom noonu la demee. papam ak waajuram waajuram bu jigéen waajuram bu góor. Mhm. suñu borom xaare leen àjjana. fii ba jannatul xulaa. waaw parce que yaay dafa dafa sax ci doom. amiin man amul lu mu am man politique lu ma kenn suma yaay rek. Mhm. barki Seydina Mohamed. tey ñaanu ma ko yàlla yàlla na yéex su su fi neewul woon sama live dootu jarati dara man li ma am bonus la. Mm-hmm. parce que waaw di ko ñaanal nag ak ñi képp ku génn àdduna amiin képp ku génn àdduna muy yaay jàmbure jàmbur yi sama rakk man ku topp ci man mm-hmm. xam nga di ko ñaanal fépp fu mu yegalee ndawam alaxira xam nga si jàmm billaay ak sama benn grand bu gaañu keroog raas di ko ñaanal bu baax a baax jantal grand la mm-hmm. waaw di ñaanal ñëpp moom tamit xam nga lu mu lu mu lu lu mu lu mu teralul yaayam lu mu teralul ak papam yàlla na ay doomam moom teral si barke Seydina Mohamed amiin yéen may xaw a timide loo sax parce que xam nga woon ñi tàmm bu ngeen defee nii da ngeen may seddal. non nit da nga a da nit da war a da war a jàpp sa yaay. Mm-hmm. man maa ko xam man mu gisutul yaay. Mm-hmm. yaay képp ku yor di ko fontoo. émission bi wala di ko ñàkkal fayda. du yàqu yaay di ko ñàkkal fayda. Mm-hmm. wala doo ko toppatoo wala boo ko gisatul ngay xam lépp dëgg la nga xam mm-hmm. jëriñu yaay xam valeur voilà noonu la demee. Mm-hmm. man damay daal li ngay wax daal ñi ñi gis seen yaay nañ ko gën a jàppal bu baax nañ fonk seen mm-hmm. parce que damay ànd ak sama gaan ñu dem gàlleem ma gis muy bëreeg yaayam di ko kontanteeg yaayam mais même bu ma xalaatee sama ginnaaw man gisuma yaay gisuma papa. léegi après lu bëri day jóge ci man quoi. ndax yaay tànk ñàkkoo ko rek doo xam valeur yaay. Mm-hmm. aja ah, la demee nag. noonu la demee nag. père man ma maa ngi sa saat bu baax. parce que promoteur yi may wax di ma wax combat man ak Malick Ndiaye bëri na de. mais nag mais nag yow yow da ngaa bokk ci làmb. waaw bu jugee Fass day jóg. nee naa la man bu jugee naa jóg. <laughs> Eh, diwli Zador laa làmb mënul nin sa plateau la jamalien. non loolu ku soxorul rek moo koy seede. ku soxorul quoi. Mm-hmm. dëgg la nag ay booy lañ mais dañoo mujjee ñëw gën a siwle. loolu yàlla ko dogal. Mhm. ça vient de Dieu. mais man li ma ci gën a neex mooy li ma ci gën a neex da nga bëre ak Laurent Laurent daan la. Mhm. moom bëre Bou Siteu Bou Siteu daan ko Bou Siteu dem ci Laurent. mënumaa daan. téyel micro bi mu dem Bou Siteu mënumaa daan bàyyi tax Bou daan Bou Siteu dama koo daan. arbitre yee ko jox victoire na. bu ma daanoon man doon naa sportif boo xamante ne bu ma du ma taxaw ba heure bii di ko métti lu ne daanu ma te du ma jël sama xaalis di ko di ko def ci li ma jaaxal combat bu dafa jàll bu yàgg mais yow dafa mel ni combat bi dafa mel ni démb nga ko bëre. waaw la demee nag da laa metti ba léegi. daf ma metti kay. Mhm. bu jugee ne dama ko daan ba konko waaw yow bu ko neexee wax loolu mais kooku maa moom maa moom fu ñu dox ba tase bu mu nee ko simeekul nga def lii da koy def. Eh, tase ngeen mu mu mu mu ne la xaw ma laa lan nga doo ngeen doon dafa mu yóbbu sa seen xaw ma sa lan la yóbbu tase ngeen. waaye li nga wax géej waay nga dëkk moo tax ngay <laughs> ngay jàppale ay buusi. dëkk ma géej waay damaa xam ne. li ma laa de bu ma génnee wuy laa de. Pikine ka ma dëkk sa sama wéy du ma ko fa wane. waaye bu ma génnee. or sa man mais sa waay sa waay nee na da parce que nee na yaxu daaw nga. waaw ah, merci damaa màgget dëgg la saa lu mu wax naa de. Bouche euh, de da ngay jënd galaas. Ah, waaw màgget naa. da ngay jënd galaas léegi. waaw. yàlla xam ne boo demee waa Pikine waa Pikine dañ xàmmeetuma Malick du Malick Ndiaye bi laa xamoon. waaw amul benn problème. booy bi ngay daw. booy bi kay nangu naa ko may sens. amul dara loo xamante ne dama koy daw. am mais bu sa combat taxawoon yaa ak moom. waaw est nga xeex buusit di nga ko xeex ak booy bi. waaw yow xanaa yow seetaanoo. dafa gaaw xanaa yow seetaanoo samay combat. non dama ne booy bi dafa gaaw laa wax. waaw dama lay laaj. <laughs> waaw yàlla baax na. <laughs> non dama ne combat bi su taxawee laa la est-ce que ni nga xeex ak Bou Siteu di nga ko xeex kii kii yaakaar naa boo xàccee bu sa loxo jógee mu jaar sa falan yi. Eh, waaw dëgg la champion la champion la. barki Serigne Touba plateau champion la moo tax am na fit day xeex day bëre moo tax nag ma am sañ ma ma ma ma bëgg ma bëgg koo may sens. Hmm. ndax du Bou Siteu Bou Siteu du mbër kooku lu plateau waa rek. plateau bu sa combat taxoon yaag Malick Ndiaye naka nga na jëflante ak moom est-ce que di nga xeex ak moom. man ça dépend rek. ça dépend la ajal woo ma rek woo ma si bëre woo nga ma fu ma dëkk. woo nga ma si xeex woo nga ma si naat si guuxum soow waaw ah. mais est ñeme ngaa xeex ak Malick Ndiaye Malick Ndiaye nag wax ne mën naa neex ni mais bu abi sifflé neexut a ñeme de. Ouzin noo takkee jaaj yi ba taxaw <laughs> ah, ah, xam nga rek. Ouzin noo tengo tiempo para hablar. noo xabalaar mucho porque yo voy a yee man Fass a waaw ah, man ci milieu waaw ci milieu jàmbaar man du ma nee milieu bande ñun Fass du ñu ay bande ay boy taawul lañ quand même quoi. Mm-hmm, mm-hmm. milieu jàmbaar laa jugoo laa juddoo xam nga màggee fa. Mm-hmm. ñu ñaaco keer Fass xam ah, ñu naan ma un fan fan a coin tañee coin Geneviève ma ko barki leeru alxuraan waaw ah, soo taxee naan plateau ndax ñeme ne lii wala ñeme ne lii. lu ma doon xam naa ne doo mais sa digganteeg Malick laa wax. sama digganteeg son père. waaw mais nit du bëre papa Malick Ndiaye. non kay sama père la nii mais bu demee ba ci làmb ja mu doon sama morom. mais comme que nii cër la ñuy wootee. comme daanaka malgré nag nañ neexal def lépp man sama fianti du du sedd. parce que mbëri may bëri yoo xam naa bi suñ taxawee sama kanam ay dëxinu sedd la ñuy doon man jàmbaar laa der laa. mais xam nga su ma doon bëree ak moom gars yi duñ ma ngeem liñ ma yabee rek laay bëree. ba keroog yàlla di ma suturaal. mais mais mais mais bu bu bu fi mu toll nii. ñaata séance ngay def. man ñaata séance ngay def. man mi man damay liggéey nag ah j'ai mon métier. instant yii ah, amaguma kumba waaw damay liggéey. déggoo may la man sama yaay rek laay dimbali si àdduna. moo tax entraînement kese parce que lamb dafa métti quoi Ouzin. parfois nga jógee sax da nga koy. waaw day métti waaw man du ma nëbb sama bopp. sàkku ma ndimbal nag si kenn. ku ma bëgg a jàppale nga jàppale ma te yàlla tax mais taxaw ma si télé wala di sàkku ndimbal ci kenn. mais damay jógee entraînement sama ko combat mën a lonaa njaag loolu moo ko gën a perteloo. Hmm. damay jógee entraînement di defal sama bopp lépp nga wéet. mais sant yàlla combat boobu noonu la mënoon demee te jig na ma parce que après indil na ma ay jàppale yoo xam ne macha allah. Mhm. du nuy sekk sekk comme sekk waaw sekk ndaanaan sama coach mhm. sama xarit suma lépp. bilaay moo may jour sama père Jili Mbaye bu faas Jili Mbaye waaw Jili Mbaye tamit xam-xam bu nekk si man moo ko def ci man waaw di ko sant bu baax mhm. di sant tamit sama benn jigéen Aïcha waaw mënul ñàkk waa sant mais mënul ñàkk si ñooñu Aïcha Aïcha maa koy sant bu baax ma benn yoon ndax Aïcha barki alxuraan jooy ma yaay ban sama yaay ko quoi mais jooy ma yaay ay Aïcha. di ko ñaanal xam nga mu am jëkkër am ay njaboot yu barke lépp lu mu bëgg ci laay fam yaayam kii yàlla may ko ko. mais kom que père ma na ma sens. non loolu dina neex. parce que heure yi ñu fi wax lu yéem gars yi. mais waa mais suñu combat su taxawee xam nga yére Malick Ndiaye mu sol yére jésneer bi bu naaj bi tegee ko fële. xam nga jamaalee bi teg xaftaanam fële ñu indi ngemb signature bi xam nga ñu jaay suñu làmb dinañ xam ni mooy loolu dinañ xam ni waaw tëggal na ñaari góor ñaari jàmbaar te nañ ñu fay xaay parce que ñun waaw njaboot dafa nekk suñu ginnaaw mhm. naam ay booy lañ nag mais maa mm. wàllum entraînement fan nga ci toll yaa ngi maintien yaa ngi. ngi maintien rek di raay ñoo ngi maintien di raay nànk nànk ndax mm. amuñu combat amuñu dara. bu ñu demee entraînement semaine bi sax beneen semaine bi mën nañ ko bañ a dem ndax parce que. Mm. nekkul làmb rek mooy suñu métier. Mhm. comprends point yow topp ñu mën a la samaay chaque jour entraînement mel liggéey mel ni duñ liggéeyanti xaalis wala comprends point yow. Mhm. bu ñu amee combat nag dinañ def fu la daf fayda. Mhm. yow xam nga Malick Ndiaye. damay bokkal mbëru grand combat. benn journée. mais dafay mel ni Malick Ndiaye mooy bëre grand combat bi loolu moom yàlla def na ko. fu ma signature day neex fu ma bëree mu neex. musuma bëre wane affaire ñàkk jom musuma bëre wane affaire tapet comprends point yow. Mm-hmm. waaw combat bi daal combat bu neex la promoteur bu ko bu ci dal moom. dan nga ci combat bu. saf saf bu di tourner ci mbedd mi da ngay xale di romb <laughs> ngay génn émission bi di yàqu. Ah, a <laughs> ah, yow si woo bu neex moo nar a taxaw. <laughs> ah parce que parce que. kenn du ma tere. chance mhm. la ba pare la. Mhm. ku daan ay ñaas ñaas. Mhm. ku daan ay champion yoo xam ne ay. ay trompeur ay trompeur imagine toi tey ma jàpp Malick Niang duma ko daan ko loolu noonu ma ne daan naa ko. yaa ngi koy xalaat nii duma Malick Niang daal wallaay dama c'est que sama grand la nag. ah su waxuma baab bi man est-ce que yaa ngi xalaat duma ko eh, daan ko yow baabu ma ko duma yaa mën nga duma Malick Niang daan ko. ku dul Malick Niang 37 fu mën naa ko duma daan ko. sama compétence nag dina nax ñu bëri. waaw la France et souvent nekk ak ñoom à la fois suñuy giri man rek maa fay doon poids man rek maa fa nekk poids léger. te soo ñëwee tey doo fa xamee kan ndax pala doo nee ndax plateau kon mooy poids léger bi. Hmm. loolu yàlla ko def ci ñun Mm. waaye bu bëree bëree bëree dama ko waaw dama ko judduwaale jànguma ko fenn man damay fubal de. zone barki di ko yaxu démb boobu di ma ko tooñee. comme waa moom Laurent nga man damay bañ wax ba tey taay damay entraîné salle matin ngoon damay fubali. Mm. mais def ma ko objectif nag quoi mais man. waaw man noonu laa mel ci milieu sport laa judd ñun Fass ñaar rek lañu entraîné. Mm-hmm. comprendre na mais tey waaw sama ko maa ngi ñaar bu taxawee ci lañu xam na jamono yi dëgg dëgg dëgg. bu langa daaree ma woon ko luy kaani du sungom baak sëñ Bamba. boobu baa ngi lay boobu baa ngi lay cax nag. loolu làmb la. Mhm. man dama bëgg nit ku gëm boppam. Mhm. dama bëgg booy bu saf. ndax mel ni yaa ngi commencé bëgg nag. Mhm. mais kii dama ko yàgg bëgg. laaj ko ba xam mus nañ tese. maak moom te conseil conseil moo ko lu baax. wala comprendre nga yow mais man keroog dafa am dafa am yoroon sama numéro yoroon naa numéro doon doon déggante téléphone ak lépp ma koy conseillé di ko teg sa axe. Hmm, naan ko lii lii kon bu yaboo léegi supprimer bi toog xaar. ndax du ma ko supprimer ndax parce que ñun ñoo mën a mayante xaalis. mais keroog dama dégg benn coow bu am. Ah. ci diggante guy gi. waaw ak euh, ak ak ak ak buusita. Mm-hmm. mais dama cee dégg surtout. comprendre ma ba léegi parce que ñoom ñaa seen coow yow sa yoon woo cee nekk. no guy gi da doon leeral rek. ndax parce que guy gi dafa nekkoon Pikine. Mhm. Pikine la guy gi la jugee. dam ma ne la sa guy gi mu ngi tudd seer. déet bul wax tur bi yow. ko bu ma wax sax. waaw sama gaan la ñoo doon ànd guddeeg bëccëg ñoo doon nekk. mais mbër yi dañuy def loo xamante ne dañuy bé dañuy comprendre waaye dañuy commencé yor wecc rek bewu sa gaan ba nga àndal bërki Demba Ndiaye. yaa moom yéen doon ànd teel ah, micro ba kenn mus kenn musu koo xam. kenn musu doon ànd suba ngoon. doo doon nekk Pikine di ànd du dund waay xëy na yàlla mooy changé quoi. Mhm. mais maa ngi moom daf na lu ne. Mhm. lu muy wax nag naan booy géej waay gën kenn gunu ko cee doon woyu looy xalaat ci àdduna guy gi dund na ko man ak moom bokk. Mhm. mais xëy na yàlla mooy ñëw def lu muy def comme rempoint yow. waaw ba xërtal ñu mën a la samaay si làmb ñu nekk ci làmb ba léegi nii di bëre. mais guy gi du ragal. kon li muy wax naan soo weddee nañ laaj Malick Ndiaye transit fu loolu lay bëgg a dëggal. te loolu moo am loolu dëgg la du ragal de te kenn gënu ko doon zëngal loo xalaat dund ko toog man ak moom. loo xalaat dund nañ ko man ak guy gi toog looloo taxoon nag muy tax booy di walla wala ne man du ma ragal ku wedd laajal Malick Ndiaye ba ñuy rey magu zi magu ziza bi ndom si yàlla si Issa. wala comprendre ko ma yow. Mhm. loolu tax nag loolu da ko waroon junj waa Guédiawaye rek pour ñu xam ne du ragal quoi moom am na lu mu dund mais dund mu jamono la moom. Mhm. mbëru pikin la waroon doon. guy ndax parce que Pikine la jóge dam Guédiawaye. Mhm. ba muy nekk pikin ñoo doon ànd. guy gi daal Pikine la woon teewal mais pas Guédiawaye. mais non waxuma lool de. Ah. xam nga. boobu guy ga du dara du mbër du dara boobu man du ma mbër. ah bi ngeen ànd nekkul woon mbër. du ay mbër du ay dara. ok. xalaatul woon sa baxam moom dina bëre man xalaatu ma baxam man dinaa bëre. boobu hmm. ñoo ngi si leneen. ñoo ngi si zaar bokk quoi. Hmm. ba yàlla daf ñu nekk ci baatin. Hmm. loolu lay confirmer waa géej waaye mais guy gi du de. mais nag tooñ ju gàllaaj quoi. ndaw ab ndaw. boo bëggee gudd fan. Euh, boo bëggee gudd fan ku la mag danga koy jox cër respecté ko ah xale day war warmaal mag. Mm-hmm. boo warmaalee mag rek loo bëgg rek da koy am. koy waxal booy bi. non man waxuma ak booy bi de. koy waxal. yow yaa ñu fi woo. waaw xale day warmaal mag koy jox conseil. ma waaye man xale la ah ah acca boog <laughs> non damaa xamul damay laajte xale la. <laughs> wala wax ji da ko ak buusit te xale day ma wax guy bandi la ah guy gi mag la nangam nangam. kilifa la man Ama Balde. Boy Niang. ñoom ba patondo. Mhm. kon ñu man bu ma doonee mag kon ñoom ay mag lañ ñoo duggandoo làmb damaa dugg at bii làmb ñoom beneen at bi ñu ñëw dugg làmb. Mhm. kon lan moo ma def mag. non doo mag moom. mais dan maa xamut moo tax ñi naan Malick mag la Malick mag la Malick mag la sama 40 waroon naa ko indaale bu ma mësee def jugement yàlla nañ yàlla yàlla yàlla na ma. déet déet déet déet bu fekkee ma xam naa luy jugement. déet man Malick Ndiaye. déet bul waat. billaahi wallaahi watallaahi yàllaa ma tiim yàlla bu ma tekk ci àdduna. non doo ma xale yàlla ma booy bi daan. bu fekkee mus naa def jugement man Malick Ndiaye. incha yal naa torox àdduna ak alaxira ñuy wax Malick Ndiaye mag dañoo baax. man Gouye Gui ma jiitu si làmb fukki yoon ak juróom. mais lan moo la gën a Balla ma jiitu si làmb fukk yoon juróom. Lac de Guiers 2 ma jiitu si làmb. fukki ba tey ñoo ngi ci làmb. ba Seera sama ñooñu ay lan lañ. man maag Boy Niang ñoo duggandoo làmb ñoom ba te Boy xale lañ koy wax. waaw bëgg ma bëgg mag man moo ma jaaxal. man mii sax moom a jaaxal. Ama Baldé ñoom ba patandoo. mais lan moo la gën a neex ci làmb. làmb. waaw comme lu ma gën a neex ci làmb comme. la moo la ci gën a neex maanaam. lu ma ci gën a neex. waaw mbër bu am fulla am am fayda rek am jom. la moo la ci gën a metti. lu ma ci gën a metti. waaw CNG ñoo yàq làmb ji. CNG moo la gën a metti ci làmb. ak pas band yi nekk ci làmb yi du ma tudd tur. pas reporteurs yi mag yeeg ñoom ñoom ñëpp ay bandé lañ. ay yenn promoteurs yi sax ay bandé lañ. looloo ci metti waaw. yenn reporters yi mag yi sax ay bande lañ ñi nekk si tele yi. yu ndaw yi man bokkuma ci. non waxuma yu ndaw yi waxuma bojo bojo yi yoon mag ñi laa la wax <laughs> ndax per Tapha Gueye sama combat combat bu Siteu dama ko woo téléphone waxtaan seeg moom noo ko dama bëgg émission Tigre nga leeral ko ndax parce que yow la fi yow la fi làmb teg nga ne yow yaay leeral lépp. Mm-hmm. mais su ma la woowee na la leeral ko mun a ma émission Tigre bii di ñëw dinaa ko dinaa teg ñaari plan yëpp ku daan dinañ xam ne ku diwa daan. Mhm. mais la ma tax tegu ko. ah loolu de man xamuma. te ma woo ko téléphone. léegi da nga jàppoon da woon leeral. ah moom moom mooy leen moom moo émission Tigre lu lu lëndëmoon moo koy leeral. te foofu leeralu ko. wa te jokkoo nañ ci téléphone ba mu ne ma dina ko leeral ma koy woo téléphone du ma jël moom mu teg ko fan te moom ba muy bo man ba may booy muy bëreeg Tyson moom tax na ma dóor jigéen ndax moom ndax moom laa doon supporté. baay du ma mag de maa ngi ñoon booy ñaa man fu ma doonee mag booy ñaa doon fa mag génération lañ ñoom ñoom ba patandoo. boo mën kàddu yu mujj kii ngi may signalé ne temps bi jeex na. xalil la xool ko de. waaw xalil ñoo ngi lay siyaar waaw di siyaar yow di leen siyaar yéen ñu toog ñii yéen ñëpp. waaw di siyaar sama mbokk mbër ma la ne dëkk parcelle. waaw di ko ñaanal yàlla ma yàlla may ndam comme que moom moom Pokola am na combat gis nga sànq moom Pokola. waaw yëngal nañu fi yëngal na fi ba combat bi man mu toog sa damaa bëgg combat boobu. combat bi am. Mhm. te leer na ma yow bu sànq ba ñuy yëngal si yow sa yaram. am na waaw waaw nit nit la mën doon. yaa ngi dégg fu may mhm. waaw di sant ñëpp ñu fi nekk ñëpp sant sama waa koñ comprends pas yow. waaw di sant Xaadim Dukure. Mhm. comprends pas ne sant jabaram comprends pas di sant Ela Ndiaye comprends pas yow bu zeng maa ngi koy sant di ko félicité si ndamam bu mu jóge comprends pas yow. Mhm. di sant euh, Youssou. Youssou maa ngi koy sant bu baax a baax borom mbaaw waaw yaa moom mbaaw loolu mbaaw Youssou ba kenn laal la man maa ngi ginaaw ginnaaw man maa leen jaay 37 yaa ngi dégg fu ma yow di sant sama gaa yëpp Mafia 37 Fou bi maa ngi sant ñëpp maa ngi sant groupe 37 Fou bi maa ngi sant ñëpp ma kenn di sant ñëpp di sant sama jabar sant sama waa dëkk maa ngi sant waa Casamance waa Guinée Bissau ndax parce que man doomu njaago laa doomu joolaa laa doomu soose laa doomu séeréer la ñeenti xeet yooyu nga bokk. déggoo ma de doomu njaago doomu séeréer laa. doomu soose la ñett doomu joola laa. ñeent. waaw doomu mankaañ laa. juróom. waaw. saf nga de lu dama foog dama bokk ci famille mankaañ. Mm-hmm. dama magu mankaañ. am magu joolaa. am magu soose. doon séeréel ci bàyyi. Mm-hmm. am magu soose. sama yaay doon njaago dëkk Guinée Bissau Marie Mendy jur ko ak Dominique Mendy kon accuma njaako. accuma njaako moom voilà. tax ma ne maa ngi sant Mankaañ. ba pare dëkk Diourbel. ba pare dëkk déggoo la doomu sérél bi moom yóbbu Diourbel. di sant samay mag Léon Boissy Cécile Boissy Simon Boissy Ismaïla Badji maa ngi koy sant sama mag la Laurent moo ngi Brésil maa ngi koy sant bu baax a baax Blaise Pascal Cissé sama mag la ñoo bokk benn biir bu ñu tëdd maa ngi koy sant di ko gërëm tawatam bi yàlla na ko suñ borom teggil comprends point yow di sant sama mbokk séeréer yëpp xojul sambe samba ngéwal comprends point yow ba daari ténéfool waaw maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp. waaw oh, déggoo. non dégguma séeréer wax dëgg yàlla <laughs> bu gaali gaa yi des combat bi taxawee incha allah. dina dina leen gërëm waaw ah, ñëpp. man maa ngi ñëpp ko waa di bëggee ñëpp di bëggee ñii xam di bëggee ñu fi fekk champion bi toog yeneen gars yi di la bëggee Ouzin waaw di bëggee fu ma dëkk Fass man amul lu dul Fass mhm. yee man moom ñëpp laay xam nga ñëpp a may bëggee daal man amul droit sax wax turu dëkk wala dara di nuyu Ndakaaru Njaay jël jóob bi yëpp xam naa na fukki penc sama mbokk bambara yi mbi fola mbe mal mo hono fola bafe ay ke dubabu keñe sama combat ak su taxawee nag mais ne Malick Ndiaye ko ay dubabu keñe non non boy ah, doon bambara de comprendre non non Malick <laughs> dama wax Casamance bu boy ay bëgg waa Casamance bu baax <laughs> waa Mulomp di leen naan burukaani kasumay bole yee waa séeréer yi ñoom man man ñu ay séeréer lañ mm-hmm. waa Pout waa Diobass waa Fissel Mbagane di parce que man dañ ma def mbër bu mag quoi te yeggu ma fa. Mhm. comprendre di bëggee ñëpp ñu may ñaan sëñ Fallou Mbaraaxit maa ngi koy bëggee bu wéer a wéer a di ko sant bu baax. Mhm. sëñ Fallou Mbaraaxit maa ngi koy jaar di ko sant bu baax a baax di ko ne ah sëñ bi gën a yokk ñaane rek nga xool. Mhm. incha allahu rabi di ñoom am Kër Massar sëñ Bas la solution xam waaw di nuyu ñëpp képp ku may ñaanal ñoom Ibrahima xam nga Malick bu Yoff. Mhm. waaw di nuyu ñëpp daal. billaay di ñu may ñu may jàppale. ñoom Thierno Ndiaye. Mhm. Babacar Traoré maa ngi koy gërëm bu baax. Babacar Traoré sama autorité sama lépp. di gërëm xam nga di gërëm tata ñëw gën a siiwle. Mhm. waaw di gërëm waa Fass yëpp Père Zaki maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm sama staff. di gërëm sama président Pafal. Ibou Ndiaye Kempes booba Omar Mathias. moomu sama mag sama xarit sama lépp comprendre na di ñaan yàlla nag waaw saay jol ma ñu bëre mu langa daar ma duma ko daan ko te gëm naa lool parce que xale bu ndaw laa moom sama combat ak moom amul lu muy def na taxaw di ma déglu rek na ko gérer. yaa yee comme que mag yi dañuy gérer nay gérer incha allahu rabbi ma jiital góos attaqué ko duma ko daan ko comme ni ma ko daan defee rek incha allah dara du si nag di bëggewaat ma Aïcha bu baax a baax di ko bëggee. waaw di ko ne place xol wi la la def. billaay wallaay taalaay di bëggee ñëpp bàyyi ma kenn sama père Djili Mbaye tamit. Mm-hmm. bàyyi ma ko sama père Djili Mbaye ak père El Hadj Koundoul suñu coach. waa Fass Benno bi yëpp di gërëm mbaru faas yëpp nag ku lim rek juum mbëru Fass yëpp maa leen di jaar waaw di gërëm Malick Ndiaye di ko naan lépp lu ma fi wax lu dépassé na ma ko jégal xam ne ndaw laa rek damaa war a juum. Mm-hmm. muy ñëpp quoi lépp lu ñu fi wax tamit neexal la tax ñu koy wax waaw. di ko sant bu baax ni nga xam nangu na ma may di ko gërëm di ko sant bu baax parce que am na ñu ko bëgg mënuñu ko am quoi. dëgg la mhm. gis ngeen mbokk yi tey nii la demee woon ci jàmmaarloo ma daloon plateau ak ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye 37 Fou wax ak ñoom ci làmb wax ak ñoom seen carrière di leen jox daje beneen yoon ak yeneen ba ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf.